tey comme ni nga ko gisandoo télé dimanche euh, ñun employé yëpp ku nekk mu ngi mu ngi toog si këram di noppale ko mais su dee gardien bi mu ma doon doxantu si si pharmacie bi si gàlle bi euh, mu gis saxaar si commencé di ko wër mu mu xool xam ne saxaar si si biir pharmacie bi lay léegi du coup mu contacté sapeur en même temps contacté waale personnel bi yëpp ndax soo xoolee ñun suñu pharmacie dañu am group whatsapp après

am na am na fi parce que soo xoolee suñu kees gi nii comme ni ko filmé sànq ah di nga xam ne am na ay dégâts soo xoolee xaas bi ni mu wooyee noonu nga xam ne am na xaas bu mu bu mu jot a bu mu jot a yóbbu mais alhamdulilah rabil alamin foofu noonu rek rek la yem te yeneen xaas bi di des jot nañ kaa rawale. alors dogalee na ko nii bon te amul benn blessé ah ba pare dégâts yi euh, tax ko demee noonu ndax médicament yaa ngi fi ba pare euh, xaas bi am na benn benn partie bu ñu jot a rawale ko loolu noonu sant la ndax mënul na gën a garaaw amul dara. sant yàlla daal.